askan wi alors avant régime bi di euh, nekk en place yéen a ngi woon en grève amoon benn série de revendications bi nga xamante ni yéen ko doon def euh, tey am nañu un nouveau régime aujourd'hui euh, quelle est la situation actuelle par rapport à vos revendications fan ngeen ci toll. waaw bon je dirais que c'est le statu quo ante parce que rien n'a Euh, am ñu am nag aussi amoon ay espoir te ba léegi ñu ngi koy continuer di ko am parce que quand justice nekk na kër goo xam ne ñun bu ñu sañoon euh, ce sera un secteur exempt de de perturbation euh, loolu dañ ciy bay suñu kii parce que malgré tout en fait tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés ba léegi fi ñuy wax ak yow les juridictions continuent à fonctionner normalement ñun peut-être au niveau syndical et puis c'est mm-hmm. notre mission ñun ñooy dem di alerter di waxtaan di xool na lañ koy joyante jubbanti mm-hmm. pour que véritablement li nga xam ne moom lañ namu ci justice euh, ñu am ko mais malheureusement ba léegi situation yi ñu doon dund ba léegi sana n'a bougé d'un iota revendication yi nga xam ne moom lañ tegoon ci table ak yi nga xam ne ay accord la sax mm-hmm. ba léegi sa reste à être appliqué bien entendu le le président de la république euh, bi mu ñëwee et puis suivant une volonté déclinée avant que muy jël nguur gi ne woon na dafay convoquer ay assises de la justice assises yooyu ñun participer nañ ci mhm. et activement euh, man maa représenté woon suñu syndicat ba ñu demee aussi ñuy rafetlu format bi parce que quand même ça ça a été des assises inclusives ñi nga xam ne bépp corps bu nekk justice boole nañ ci mu nekk aussi une première ñu koy rafetlu Euh, bañ ci bañ ci jógee aussi mhm. mu am un en fait un ensemble de résolution boo xam ne dañ ko jël mais résolution yi dafa am yoo xam ne dañoo am un caractère constitutionnel il faut modifier la constitution peut-être pour voilà ces réformes là nga ñu ko am yoo xam ne dañoo am un caractère législatif il faut un texte de loi que ça soit un projet de loi wala une proposition venant des députés ñu adopté ko am yoo xam ne il faut modifier la constitution am yoo xam ne aussi c'est du domaine réglementaire ñun nag suñu problème ak li tax ñu ñu am benn incompréhension mooy que yi nga xam ne c'est du domaine réglementaire te li nga xam ne li ci ëpp euh, li ñuy kaas ci loolu la la la war a bàyyi ko ba léegi sax tarde à être mise en œuvre te ñu jàpp ne kat l'exécutif moom moom tout ce euh, moom moom tout ce qui mm-hmm. lépp loo xam ne arrêté wala décret moo ko war a mën a régler. Mm-hmm. te ñu jàpp ne aussi c'est des revendications légitimes. Mm-hmm. dañu jàpp ne aussi dañu war a baral jéego yi ci côté boobu pour que véritablement ñu dépassé ko.